mais gii li nga wax nii moo nekk ci lettre bi nga miim yow bi nga weddi c'est-à-dire li nga wax nii moo la naqari moom moo la marqué moo nekk ci lettre bi nga xam ni weddi nga ko lan moo ci am exactement ci lettre bi nga xam ni génne na rëbës te nga ni binduloo ko te si signature nekk ci. man ma Marius Sagna euh, fanweeri fan yi nga xam ne moom laa def rëbës. Mhm. mun naa jàpp ne maa nekkoon prisonnier bu ñu gën a surveiller balaa maa génn sama nekk dañ ma doon dañ ma doon fuyee maanaam bu ñu waxee ne dama visite. visite avocat wala visite euh, ñoo xam ne samay mbokk samay xarit yi may seet si. Mhm. balaa maa jéggi sama buntu nekk dañuy xool sama poche bu ma yoree livre dañuy xool livre yi bu ma yoree cahier dañuy xool cahier bi. Mhm. bu may ñibbisi dañ may visiter donc man maa ngi tudd Guy Marius Sagna pas Boy Djiné mënuñu ma fuye ba pare d'accord fu ma dem ñu fuye ma d'accord ñu ne man maa génnee lettre mënu ma génnee lettre li sama avocat wax avant may génn. ma wax ko depuis bi ma génnee mooy lettre boobu. xamuma ko gii nga baal ma quoi parce que kon entre yow ak say collaborateurs yi ngay liggéeyal entre FRAPP am nañ ci ñoo xam ne waxuñu lu nekk dëgg. yow lay doon nga baal ma wala ñoom lay doon parce que aussi askan bi ngeen di waxal. lu ci mën a am aussi mu leer. parce que je pense que du ngeen du ngeen du ngeen du ci xelu nit ñi li nga xam ne moom ngeen di bañ ci élite bi ñu def ko askan wi yéen aussi du ngeen ko def mu lettre bi s'il vous plaît nga baal ma rek ñu wax ci pour mu leer c'est pas méchant mais aussi am dëgg bi. Pape Ngagne benn wala ñaar laa ci wax bi ci njëkk mooy man maa ngi nekkoon biir rëbës ñu nëbb ma jant bi li xew ci biti man xamuma ko li ma xam mooy bi coowal lettre bi amee sama avocat ñëw na ma seet ne ma gii est-ce que lettre bi yaa ko bind. teg ci ne la délit la. non war nga xam ni délit la. loolu amul problème waaw d'accord sa avocat am na fu mu egg ak yow.